dem seeti ki nga xamante ne mooy Sofia Sofia yal na sa bor gi laa desoon ah dem seeti Sofia bu yeewu leen donc dañuy daal di daw xool eh, élément bul daw bul daw doxal bul daw bul daw doxal ñu dañuy daal di dox daal di daagu ndànk ndànk dem seeti ki nga xamante ne mooy Sofia bi nekk ci kër gi yeewu leen mu daal di ñuy concoctel benn brochette à eh, l'orange bu Sofia daal brochette à l'orange la def moo dimbali ma rek ñu dem xool élément bi ñëwaat <laughs> Mm. alaaji <laughs> brossé moom nag dafay laaj nga mariné ko bàyyi ko mu macéré parce que ñu bari du ñu lekk ginaar parce que dañu naan dafa sëcc mais bu fekkee da ngay euh, mariner poulet dafay laaj nag nga citronné ko à l'avance def un peu de sel boo amee benn pincée de sucre mën nga ko ci def bàyyi ko ci eau tiède mu macéré bu ko defee ginaar gi mën nga ci sax bañ a defaat yeneen épices mën nga ko lekk noonu te dafay saf. salaat bi aussi la même chose liñ ci def yëpp ay légumes rek la ñu def à part fromage bi moom tamit amul dara lu gras dañu jël rek euh, maïs du persil coriandre def légèrement ketchup ak euh, piment de Cayenne jël euh, tomate jël tamit tuuti fromage mélangé ko ak moom def un peu de ci tamit nag tuuti citron pour mu am tuuti peps ak quelque oignons yu ñu émincé def ko ci nga xam ne booy lekk salaat bi da ngay sentir fraîcheur bi moom salade bi gis nga noonu lañ ko defaree mu simple tey nag Samira comme ni nga ko gisee nii nag dama leen a proposé rek euh, brochette à l'orange proposé leen tamit benn salade boo xamante ne ni mën na ko accompagner muy euh, salaad de fromage. waaw plat bi nag euh, c'est très simple très facile à faire pour nga defar ko nag da ngay soxla blanc de poulet soxla orange courgette oignon persil coriandre. piment de Cayenne utiliser tañu euh, tamit li nga xam ne mooy beurre am nañu sel poivre ak quelque épices yoo xamante ne ni moom la ñu mariner li nga xam ni mooy euh, brochette de poulet à l'orange leen proposé tey mais Sophie dafa am lenn lu ma remarqué ah, maanaam bi ngay togg yëpp gisuma benn yoon nga utilise bouillon maanaam loolu ci particularité Sophie traiteur la wala Sophia traiteur wala. waaw xam nga comme li ñuy wax rek euh, waañ moom mooy laboratoire kër moo tax lépp lu ciy génn rek dafa war a nekk produit bu sain bu simple boo xamante ni nit ki mën na ko lekk te ak modération te du am euh, bouillon wala mu am ay épices yoo xamante ni moom la ñuy faral di def euh, déjà nag gis nga togg naa ko bu mu pare amul dara lu gras loo xamante def nañ ko ci bi nga xamante ne nii moom la ñu revenir li nga xam ne mooy brochette yi te brochette yi bu la neexee tam boo nekkee yaa ngi sa kër am sa benn euh, barbecue mën nga ko sax bañ a def ak beurre mën nga teg benn xal bu ndaw rek daal di ko ciy teg bàyyi ko noonu muy gos nànk ci euh, sa fourneau le temps que nag li nga xamante ni mooy brochette yi ñor mu macéré bu ko defee ginaar gi mën nga ci sax bañ a defaat yeneen épices mën nga ko lekk noonu te dafay saf même bu fekkee poulet entier bi mën nga ko def noonu dafay saf ba yax yi ci boppam mën nga ko yéeyaale noonu njóobeen yi mën nañ ko def noonu <laughs> <laughs> macha allah Sophie li ñu présenté yëpp rafet na waaye li ñu bëgg a xamal téléspectateurs yi aussi mooy que Sophie euh, nekkul di liggéey ci yeewu leen rek Sophia traiteur la ci loolu lay yëngu ci wàllum traiteur. waaw comme ni comme ni ko waxee rek euh, Samira euh, dama yor benn service boo xam ne dafay yëngu ci événement événementiel muy Sophia traiteur Sophia traiteur nag dafay yëngu ci lépp lu ci mel ni rek mariage baptême tour séminaire anniversaire fu ñu ma woo rek ma wuy leen fa repas de yi yëpp dañu koy def. ay ci tabarkàlla lii nag dañ koy bëgg ci euh, koy euh, togg ah togg bu naturel togg boo xam ne du ci am dara loo xam ne dafay sànq kenn mais boo ma ko mayee rek balaa ngay jël euh, ma may ko sama rakk ji chéri Fallou taalibe maam Thierno borom daaru bi ah yaxa borom Cinco Prestige doom yaayu Soda ah, tey anniversaire am la tey anniversaire am la ma koy souhaité un bon anniversaire di ko may li su fi togg yëpp maa ngi ko koy may man beñee yeeg yi dama koy jël joxaat yax ah maa ko ak bi saab bi yëpp ma jox yàq yax nga jox lépp moom ko lépp moom laa ah, ko bëgg fàllu billaay wallaay dafa bëgg fàllu fàllu bëgg ma donc man kooku sama soxna la yàq vraiment dundal fàllu nag moo ma la gënal ne woon naa ko dinaa ko wax soo daa ma ko gënal man non man fàlloo ma gënal man fàlloo ma leen gënal waaw man fàllu Papa Diop lañ koy wax sax Papa Diop moo ma ma la gënal yow ak yéen ñëpp ak yax Papa Diop la gënal ah, yéen ñëpp waaw ah? ah, didi su ngeen di xarit la kooku suñu xarit la waa Siko rek rek waa Daaru yëpp yëpp yëpp ah Siko prestige xam naa ne du ñu ñun ñëpp sooda équipe na loolu histoire di def moom rek koy def. kon gisoo yi muy yi muy wékk noonu di ko wane. moom rek moo dem fréquenté ah, ki moom jasner hmm. moom rek moo dem fréquenté ki moom ci euh, tissu yi euh, yenn nu ngeen koy wooyee ya xaw ma waax seen brodé yooyu am na brodé bu cher bu ngeen wooyee xaw ma nan. Autriche. déedéet am na beneen brodé. am na beneen brodé moo dem fréquenté waa ji ko moom. nuyonteeg moom toog ak waa ñu kaf ree ma ne ko seex nga kii kaf mu ne waa ma ne ko man simil naa la sàpp yeggali fi ñu demoon nga ne ci Sophie bu yeewu leen lañu laa demoon seeti mais mm. tamit Sophia dafa dafa yëngu ci li nga xamante ni mooy traiteur maanaam boo amee lépp luy événement que ça soit mariage baptême anniversaire lépp lu ngeen bëgg rek mm. Sofia def leen koy defal donc moo tax tey ma njëkki ko ci kër gi pour dem tout simplement wan leen ko wan leen ni togg na togg bu neex boo xamante ni zéro épice citron la jël orange ak lii di sel pour bañ euh, li nga xamante ne mooy ginaar bi ci donc Sofia traiteur mën ngeen ko joindre bu ngeen soxlawee euh, ci ay prestation 77 727 84 60 wala 77 012 47 98 baax a baax mu nekk disponible waaye nee na abaa bul wax ci ay beñeem beñe bi noonu dama ci wax <laughs> beñe bi dama ci wax parce que dama fay euh, mu jaay ma euh, jaay ma xeetu beñe boo xam ni gëj naa ñam beñe bu mel noonu mm. euh, ma ne ko Sophie sa beñe bi lan nga koy defaree mu ne ma bu ma ko waxaat parce que beñe bi boo mënee jënd boo mënul bàyyi oh. ma ne ko nit amatul droit apprécier beñe mais nag la kuy jaay doo joxe say secret ah ma ne ko ma dafa yaakaar ni dafa yaakaar ni su ma joxee dafa yaakaar ni kii moo joxe secret beñe bi dama koy yóbbu sama kër ñu ma koy beñe man ko non non pourtant kii amee lu ko jaaxal ci beñe rek c'est normal Sophie mun beñe waaw parce que Sophie comme beñe ah. man maa ko wax c'est très normal Sophie mun beñe ah, waaw mais bien parce que eh, yow comme beñe. Eh, su eh, fekkee eh. mardi bu ko doonul la dëpp de. sama jaam la joolaa la may xaal pulaar la. Ah, waaw macha allah yow la mère bi mais Pape Cheikh Diallo li may wax Pape Cheikh Diallo wax na ko ko dëgg ah. man nga <laughs> Eh. maa soo gis daal ku Aba wax ni beñeem jaaxal na ko toog. Eh, moom beñe na beñe mais ci loolu de tamit ay ginaar de. lépp mën na ginaar mën na yàpp. ba pare Aba lenn loo ci xamul mooy Sophie ba tey xam nga mënoon na ne am na lu muy am mi ngi mhm. liggéey mi ngi joxe ay nit ay stoff ba den ba tey bàyyiwul jàng euh, li nga xam ne moom lay def. ak ba tey mi ngi continuer euh, di euh, jàng di gëstu ci li nga xamante ne mais passion am la togg passion boo ko xoolee sax da koy gis ni muy liggéeyee ni muy gaawee ba pare dafa set mais taa yi daa yëg succès de ah. gisuloo ko. waaw li ko ah, jot mu yëg succès nee na ko da nga yëg ba pare def pantalon jaune. dafa mën. noir bu ñuy wax ci lekk gis nga dañuy dañuy dem. dañuy dem baal sa micro bu baax. teg vaisselle bu amul dara. Adja Amu Serigne loolu la a bañ ci àdduna. mais xoolal day indi ba pare euh, waa indil koy wax Hermès moom la ñu naanee aba teg ay affaires yi nga xamante ne yu bees tàq la xam nga koor gaa ngi waaj a ñëw ba pare ah. teg sucré teg salé teg lépp macha allah ba pare aba day teel a yeewu suba teel saafal ñu ay neem indil ñu ay affaire wallaay pain du manqué yàgg yi nag ay bisab wax boobu rek yii bi nga ñëw mooy keroog bi ma jógee naa la maa ngi dem ci ginnaaw ne boobu dama doon naan di yëy di naan di yëy mujj gi damay mujj suur ma jóg daal di jaar ne dem <laughs> nañu dem <laughs> xool yi euh,